bi mu paree émission am ak euh, député Farba Ngom euh, dafa quitté télé ba comme ni mu ko tàmm di defee di ñibbi këram maintenant bi mu wàccee otoom nag la temps muy dugg këram ci la ko kenn attaqué ko xam ne dafa doon xaar apparemment euh, dóor ko ci bopp traîné ko ci suuf jam ko nag paaka ñetti yoon mais xam nga rek nit moom bu ñu la agressé da instinct de survie sa loxo ngay def ci kaw. donc loxo yi ñoo ñoo jël coup de couteau yi am na ci nag euh, ay blessures yu profondes yoo xam ne tax na ba mu ñàkk deret bu bëree bëri bu ma la wanoon photo yi da ngay yéemu ci yàlla loolu nag moo sonal ba bi mu ñëw hôpital elle était vraiment fatiguée euh, xawoon na sax euh, nekk moment yu yu métti daal bañ bañu tiit ñun ñu ko jege woon mais alhamdulilah prise en charge bi ñu ko defee ginnaaw ay waxtu yu ñu xaar aussi lu tam lu ñuy lu ñuy xaw a déploré la mais n'empêche médecin yi wax nañu léegi une bonne et que voilà ñun sax mën nañu quitter les lieux bañ fa def benn benn regroupement xam nga militaire ñoo amuñu amuñu caaxaan trop voilà jërëjëf eh, mi ngi noonu eh, Ibra Dieng moom nee na choix bu garab solution ndax am na Mauritanie déedéet amagul Mauritanie waaye defe naa ni Mauritanie fan moo leen gën a jege yaya ah Mauritanie Sénégal Sénégal hmm. voilà kon mën nañu dama foogoon mën nañu mën nañu wa yaa yaa bàngoo <laughs> gàmbi leen Sénégal. kàddu jéggiwu leen Sénégal lay jëlee. ah d' accord kon boog Ibra <laughs> woo wooteel kon ci 78 428 66 77 wala 75 630 50 50 ca laa ko bëggoon a mu dem foofa. Assane ginnaaw lii nag euh, moom euh, kii Madiambal mi nga xam ni. daal xëy nañ ci ay waxam ay mbindam ci réseaux sociaux yi nii daal nee nañu jiiñ na ko Ousmane Sonko waa kër mais lu mu ci doon daal ay Samba Boy euh, dab nañu may Maimouna Ndour Faye jël nañu la mu yoroon jam nañ ko ba daw nañ. waaw sant yàlla rek sëñ bu comme noonu ñu la ko waxee xam nga Mariama Sagna moom gis nga ko. Hmm? Mariama Sagna moom. waaw. këram la demoon bu ñu si bitin bi ñu agressé ko rey ko suur nañ ko ba léegi ni amaguñ si dara dañu leer naa journaliste si yaakaar naa ni ñu si war di dikke dikke wuñ si noonu te war naa nekk. Hmm. mooy góor googu ñuy windeel barki dem lañ ko agressé dëkk Kër Massar moom it daal di koy rey. Hmm. kon it Maimouna moo Ndour mi it euh, ñu agressé ko bii moom it jam ko ba mu dem hôpital ne ah sant yàlla la ginnaaw mi ngi koy nettali ak sant la bu baax a baax xanaa di waxaat gouvernement bi nañ taxaw sécurité askan wi. te wàññi ko politique politique parce que agression bi bari na. waaw nañ taxaw si sécurité maa ngi gis euh, euh, télé boobu nu ci kii. fi ñu wane nii ak taxi bi yow sax. Hmm. ñu envoyé waa ji ci taxi rek ñu ñu agressé ko jël ay portable voilà est fii Ouest Foire loolu dafa bari. même même même parcelle gi ñi ngi wax ni borom sareet yi non lañuy def ak ñeneen ak ñeneen dañuy agresser nit ñi agre fajar geet kenn mën ta xëy liggéey da ngay tardé sax ndax bo teelee xey dañuy nangu say téléphone kon il faut que gouvernement bi yok à sécurité tak der yi ñu baña nek ci mbéd mi mais ñuy guddi gi ñi wacc ci terrain bi bu beut set bu mm. heure six heures demi ñu mëna taxaw askan wi ndax li lepp li koy waral moy ñak sécurité mm-hmm. kon nañ taxaw askan wi mais benen benn may mëna a yu melni bo dé jigen jigéen nga and ak gor gu la mën a taxaw wala bu mënta ànd ak góor bu ne laa indi rek joxeel mais nag ginnaaw nee nañ ko indi xaj na mu téye bañ jam kook yooyu ñu ngi koy ñaanal daal docteur yi faj ko mu wéraat continué waat liggéeyam mhm. Mhm. yeneen yi moom détail détail daal d' accord mi ngi mel ni sax ci page 7TV ñu ngi gis ñu ni Bamba Kassé daal euh, dafa mel ni ak euh, lenn ci euh, médias yi ñu ngi ñaan mobilisation foofu la ca locaux yi 7TV tey di h su ma juumul daal gis naa ñu partagé loolu te defe naa ci surtout kii bi ñoom ñoo ko euh, publier alaaji agression bu metti moom la dund ginnaaw démb émission bi ba fi mu toll nii ca l'hôpital euh, médecin yi di rawale bakkan waaw d'abord damay féliciter Assane ci ni mu waxee mm-hmm. ni wax la joo xam ne wax joo am solo la mm-hmm. parce que Assane ni mu waxee nii mm-hmm. damaa déglu tey bi ma xëyee ci suba dégg nit ñi journaliste yeeg ñenn ñiy wax ñoom commencé nañ ko yóbbu ci mbirum politique. ah oui waaw ah. kenn ñi mën a koo tuddee foofu. waaw non c'est que di que doy waar rek te Assane boo déggee li mu la wax. Mhm. daf la indil la réew mi amul sécurité. Mhm. amul lii. léegi xam nga yóbbu ko ci côté politique sax baaxut. waaw parce que li tax euh, baaxut. da lay fàttali loolu bari. Euh, parce que moo tax bi ngi ñi xëyee tamit di partager li gis naa ñu bari ñuy faat kay. nga góor gi nekk sëy fële. parce que dañ lay wan nag ne la yéen a yóbbu mbir ci affaire politique te defe naa ni tout d'abord li njëkk mooy nga ñaawlu. li xew ñaawlu jëf ji euh, ji nga xam ne jëf nañ ko may mën a dul kenn yéenewu te ñaan tamit ni nga xamante ni bii yoon taxaw ci. comme ni mu war a taxawee ci yëpp tamit yi nga xamante ne bi kii na ngir indil ñu ci ay leeral ña nga xam ne bii ñoo jëf-jëf ju ñaaw yooyu ñu teg leen ci yoon loolu mooy li nga xam ne mooy li ëpp solo mm-hmm. mais boo seetee mbir day xew léeg ñu interpréter ko euh, dégg naa tey ñenn ñu naan wëy kenn du nangu liberté dafa war a am nit ñi di joxe seen xalaat di wax seen kii ko ko xam nga enquête na ba pare mm-hmm. waaw maanaam yow police waxagul la dara gendarmerie waxagul la dara mais yow enquête nga ba pare ba ba joxoon nit ñi ne dem leen seeti ko fële ca ñële. Mm-hmm. comprendre waaw lu tax loolu lu tax nga bëgg enquête loo xamante ni bi yow lii nga xamante ni bi moom nga gi yaa ngi joxoñ naan xool leen ko fee. ko fële waaw dëgg la loolu c'est pas sérieux mm-hmm. ñun ñëpp xam nañ réew mi agression bari na Maïmouna Ndour Faye journaliste la d'accord. Mhm. mais chaque jour ñu agressé ab jaaykatu bu jën. Mhm. agressé nit koo xamante ni mi ngi kii agressé et pourtant yooyu yëpp duñ ko yóbbu ci côté politique. ah ñaata yoon lañu ñu fi agressé ñi nga xamante ne bii ca euh, Kër Massar. mooy paa bi nga xam ne moom lañ doon wax noonu. ah mais yooyu yëpp tey bu fekkante bi tey lii am na rek nga bëgg a wax ne euh, politique la. ñooñu est-ce bi am ci. Euh, euh, plainte détenu yi ak menace de mort yi mu doon. jox fan yi non non détenu yi loolu moo lay wan ne la ñee légaliste lañ sax parce que dañoo jàpp ni kii wax na leen lu jaaduwul. ah ñu dem plainte ñu ne nañ jaar ci yoon. ñooñu kay xanaa xam nañ yoon. Ah, ñooñu kañ dañoo nekk ci réew moo xam dañu jàpp ni bànqaas yaa ngi dox. Ah, ñu ne bu ñu kenn amut sañ-sañu fajal sa bopp. Hmm. nañ dem ci yoon. donc euh, defe naa ne sax may mun a bu buggut sax. nii ñu nga xam ne ñoom la ñu bëgg a jëlee ay mbiram. di ko dégg naa am na télé bu yanu combat bi de maanaam mel ni lu ko jëmale. ci politique bi non en tout cas nañu bàyyi lii nga xam ne ñu ngi koy bëgg a yóbbu côté politique parce que mbir yi mbiru agression moom ku ne xam na ni. Mhm. ak réew mi moom insécurité moom am na. Mhm. loolu nit ñi xam nañ ko. Mhm. li Assane expliqué sànq li tax ma ne la félicité parce que joxe na ay kii parce que gis nga lépp loo gis par exemple am na ñoo xam ne dañuy wax ne dañuy jàngale. ni ngay def ba éviter agression. yii mu joxe nii ci la guddi nga guddi la jigéen nga d'abord booy wàcc fexee la am ñoo koo xam ne mën nga ànd ak moom mu yóbbu la sa kër loolu kañ ku ne yàgg na koo gis léegi sëfoor yi daan jël fii Walfadjri bu ñu daan yóbbu jigéen bu ñu ko yóbbu ba ci kër ga dañuy taxaw xaar ba mu dugg ci biir kër gi pare saa bu ñëw ci kii yoo xamante ni bi dañuy taal seen kii taxaw xaar la ba mu bu ku jigéen ki fëgg ba dugg ñuy soog a dem peut sax bu dee góor la sax loolu daaw leen ci fekk mais bu dee jigéen la daan nañ ko sécuriser donc yooyu dafa nekk mbir yoo xamante ni mbir ñu nag moom këram waaw maanaam am na gardien par exemple di daan gaare biiru këram bundu këram ubbi gaaraasam dugg waaw mais comme koñam dañ ko pavé dañ koy pavé waaw mu gaare ci angle bi waaw war a dox dugg dugg këram waaw xam nga loolu yëpp ay kii la yoo xam ne daan gaare bundu këram rek yëkkati gaaraasam dugal otoom dugg xam nga yëpp garde bi ne ko garde bi ñëw ubbil ko. waaw mais non non ñu ànd dox ñëw dama ne waaw loolu yëpp tamit ni la Assane ñuy wax beneen nii rek egsi naa waaw garde bi ñëw ànd balaa ngay yegsi sax nga woo ko bu ko defee garde ba xaar la mhm. boo ñëwee nga xam ne da ngeen di ñëw daal di dem wala nga am koo àndal rek comme que yooyu yëpp obstacle yooyu yëpp mu ngi ci te et émission guddi la xam nga tamit bon def émission yi euh, guddi yi tamit beneen saay man damay wax ne Euh, am na fu kii tool toll am na yu bari yoo xam ne sax mën nga ko enregistré. enregistré waaw def sa émission enregistré dem sa yoon. bu ko defee waaja bu lay xaar fekk yaa ngi nelaw. <laughs> xam nga pexe la yoo xamante ni bii war nga parce que tey jii. li daloon xam nga li daloon dàmbooj waroon na yeeku ne. ñu invité ci émission xam nga te boobu ba léegi jàppaguñu gaa yi. anañu boobu ñan la waa ñan la dàmbooj mi ñu toppoon ak fetal yi. Mm, xam nga ba léegi jàppaguñu gaa yi. kenn xamul ñan la. donc nañu bàyyi affaire yi nga xam ne ah waaw te kenn waxu ci kii wuñu ci te boobu ci télé la jóge waaw ci télé waaw. ci télé la jóge télé boobu waroon na yan combat parce que loolu dangereux la. Hmm. comprendre nga donc dafa am yu bari yoo xamante ne bi tamit mi ngi fii kenn mënu ko wax. mais en tout cas daal. na fi yem daal moo tax ni nga xamante bi noonu la Assane waxee nii nga xam ne dafa jël mbir mi yóbbu ko ci insécurité rek wane ni insécurité am na. Hmm. te ñi nga xamante ni tey ñoo yor sunu kaaraange dañoo war a gën a bàyyi xel. Hmm. sunu sécurité. loolu mooy li nga xam ne mooy li ëpp wax ni moom la lañ wax ni moom la ma jàmbal wax nag ko jiiñ jiiñ na nga tamit man am na ñoo xam ne man wax dëgg yàlla déclassé naa quoi tudd seen mbir moom jaratu non parce que dafa ah, xam ne man liñ bind rek laal waaw xam nga dafa am ñoo xam ne ci àddina samay bi ah. euh, seeni wax ah. euh, moo doon dil ma nekkatuñu nit ñoo xam ne seeni wax jar naa commentaire hmm. Hmm. waaw déedéet jaru ko parce que ay ay diw la xam nga hmm. loolu rek bu doon réew mu normal moom sax war nañ koo woo ne ko joxeel preuve yuy wane ni diw la bu doon réew dëggantaan bu normal nga ñëw ne ñu waa kër kii la di nga leeral lu tax nga ne waa kër ñii la. Mm-hmm. waaw mais nag xam nga fii moom da ngay wax lu la neex ginnaaw moom am na foo xam ne féete na fa mën naa waxee nu ko neex. waaw amul problème dara du ko ci fekk. d'accord mais comme que moom fi mu toll nii moom moom kañ dafa a dem jël élément ko kii. Ah. comme moom xam na ñi ko def. Mm. ah du fii lañ fi wax kii gendarme femme waajooju toog ci euh, euh, kii télé wax ne dañ leen a def nii. Ah. ba léegi dégg nga ñu jëli ko. loolu moo lay wan ne réew mi dafa ñoom fi mu toll lu la neex wax moom foofu la ko teg rek lu ma neex wax waaye léegi tey bu soobee yàlla mu jeex. Mm-hmm. parce que li ci des bareetut. bu boobaa nguur gi bu boobaa dina ndax dina xam ndax après dina waxee nu ko neex. Mm. lu tëb rek nga ne lii la. ma jàmbal après la doon lu muy doon. ah donc xaw ma lu muy doon de waaye daal xam naa dina wàññi waxam. parce que waxal fi nit lu la neex moom dootut yombati moom. journaliste lay am réew war sa demee noonu quoi rek waxal nit ki. tuumaal leen nu la neexee nga wax ko aisément nga xëy rek bind ne waa kër ñii la c'est simple. mais miirim dégg naa ko muy intervenir moom tamit moom daal xam naa daal daal tabarkaal la kon mi ngi noonu ñu bàyyi xel ci sécurité bi xew ndax li mel ni lu tax mu xaw a doy waar lu tax mënuñu ko dugal ci politique tey Assane mi ngi may wax euh, ndaw soosu waaye alaaji boo génnee réseaux sociaux yi. Mhm. Mariama Niass a ngi nii photo man commencé génn. Mariama Sagna Mariama muy benn encore ñu commencé waat génne Pape Ablaye Touré mii nii ñu ko def. waaw ba léegi ñu ne amul enquête. enquête léegi ñu jógee foofu ñu ñëw ci góor gi nga xam ne ndeysaan goro laa ko daan wax kii ba may ñëw ca euh, kër Malika. Mhm. doomam la ma la ma la ma yaaji daan tooñe naan ma kaay ma may la sama doom ji. bërki dem dem naa sax ba jaale ji ko moom it. ñi ngi partagé photo am naan waa léegi. lu tax kon du ñu def justice ci ñii ñoom. maanaam léegi nag loolu li koy indi rek mooy bu ñu bu ñu dugal affaire yi. ci bu ñu ko dugal ci politique waaw dañu xam ne agression ñu fexe. waaw identifier ñooñu jàpp ñooñu. peut-être zone yooyu am na ay caméra de surveillance ak yooyu. mën nañu dem ba ñoo def jëf ñaawteef. exactement yooyu yëpp nañ ko jéem a xool. aywa waaw kon defe naa loolu moom police ak gendarmerie xereñ nañ ci bu ñu leen bàyyee ñu def seen liggéey rek. Mm-hmm. léegi tey ñu indi la lu leer. aywa incha allah. ba suba ak jàmm. waaw xanaa santaan yëpp lu may loolu ca kanam mm-hmm. tuuti eh, ci guddi gi maanaam xëy na information dina gën a évoluer mhm. bu vingt une heures jotee euh, vingt deux heures mhm. ngeen di ñëw ca jomet waaw dinañ ñëw si jomet si kàttanu yàlla waxtaane waat lu yaatoo yaatu insha allahu rabbi mhm. eh, lu may dooraat ñu ngi ñu ngi ànd ak ñun daal si programme bi maa ngi nuyu nag euh, femme africaine euh, mu ngi bokk foofu si xale yi Pastef yi ci jigéen la femme africaine la femme bu ñuul bu teint bu rafet la yor macha allah. léegi lu ñu teint bu rafet ak yooyu yëpp. waaw ah. la moom. waaw kon femme africaine de am na. waaw maanaam loolu yor teint bu rafet ku ñuul la nii loolu mooy lan. dama koy nuyu rek. ana photo ma xool. <laughs> photo bi wér est naa numéro am sax damay nu ma koy nuyu dama ko gisoon. foog gis dama ñoom ñoo yoroon togg yi ak bernde yi. Assane daa mel ni yemul woon ci lañ ko yónni ndax man Assane bi mu ñëwee élément yi bari laaj naa ko Fall ni ma jot élément ma koy jëlee Fall ma génnee génn bu na ma génn si mbedd yi ndax la nuyoo beeg photo yi Fall day mujj mer ni andi micro te yow ñu jox la yow nga dem liggéey nga naan nuyoo bi ah, déet nuyoo bi alaaj dina ko kii daa war a delloo carburant eh, gis na hélas gis na élément bi dem naa ba sëñ ba mané ko eladji Sa ndiogo ma yoni action yi. wa gis nañ loolu kay. wa loolu kay loolu ngeen ma yónni. yeneen interview sin laa yeneen interview la interview dama ko man nax mbolo mi. El ngi gis na ah elas. il faut ma way ay garde ah, voilà. voilà El garde ko waaw. Hmm? il faut ma way ay garde parce que bu génn <laughs> yi day bari. man wa man nañ ko wutal garde corps mel bu seigne baram ban <laughs> bu kan. seigne baram sa xarit. garde ak a yaru wala koy xaw ma nu ma def ba nekk garde. suñu baar njaay ah. na suñu baar njaay. waaw kii ànd ak moom waa ji yaru jooju rek. Hmm. waaw baax la. waaw ku dafa yaru dafa yaru. mën naa am daa jàng pomme yi de. dégg naa boo jàng na ko moom mais dafa yaru. waaw ah, mais dafa dafa kii quoi. dafa yaru dafa kuul. alaaji ba lay tàgg. waaw ba altine jàmm ci kàttanu borom.